da ngeen jëf mbokk yi première image Youssou Ndour yow Youssou Ndour a ngi internet li si réew mi Youssou ngi noonu ndeysaan bokk antenne li si réew mi ah moom moom moom Balla Gaye numéro 2 ndeysaan première image yu sunu première image génn na ba saraxe yaay waaw. ndeysaan ndeysaan. waaw daa yàgg doon dër bi. loolu la ma Zil wax. nee na ma Talfa coow rek moo la boole Youssou Ndour waaye du palmarès. waaye lamb lamb yaakaar naa euh, du biir de xëy na lamb si kaw la ñuy dabante jërëjëf Modou Boy jërëjëf Nober Lopi ziar naa la Youssou Ndour génn la léegi génnaan na mi ngi noonu tuur nañ ko ndox ma ñu ngi noonu ndeysaan sotti nañ ko ko hey Youssou Ndour xale bee ngi noonu de sang nañ ko na. Ibrahima Kouyaté jërëjëf kontaan naa si yow Ibrahima Babacar Laye Diédhiou jërëjëf cant ak ngërëm ñal na la laay LS fan nga faytee Youssou Ndour a ngoog sëñ àlla ba borom Bambey borom junni yi le grand mara fan nga faytee borom nay dëgër sëñ àlla ba Youssou Ndour a ngi noonu ana jàng efficace foo faytee Youssou Ndour a ngi noonu waaye sëñ Fallou Seck borom tab sey Touba Xayra séeri maam jaara ak soxna bana fan nga faytee Youssou Ndour a ngi noonu jërëjëf Modou Gueye Modou Gueye nee na ma Pikine dañuy Youssou Ndour wax nga dëgg Pikine ak Guédiawaye benn la te lay dox seen diggante waaye jërëjëf eh, ki nga xamante ne mooy Abo Sañ Sañ Sarr borom përi la France fan nga fayte Youssou Ndour a ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu sol ay tisal yu yanj mbooloo ba génn ñëw pour pousser Youssou vers la victoire eh, tey jii diggante mag Talfa Zia Wone Baldé ndeysaan Zia nee na ma combat bi Instagram da koy si dal Zia plaque la mën a pirate Zia ndeysaan Zia nee na ma Talfa Thiat Daouda Fall nekkoon lamb ji ndeysaan Zia nee na ma Talfa Thiat Daouda Fall ñoo nekkoon lamb ji waaye nag tey comme moo wax rek làmb moom sa waay dootul palmarès de waaye coow mën na la boole mbër waaye Youssou Ndour ak Talfa c'est normal logique na pour ñu bëre ndax dañu ay xale nañu gàkkoo ngi noonu ay sa jigéen bu mën góor ñëw na ndeysaan taalibe sëñ Babacar la borom Dakar People jërëjëf Fallou Fallou nel ma Talfa sël aca gaa yow may subar bësal m bi bul ko fàtte bësal zem yi bësal zem yi bës leen zem yi ma xool bu fekkee li may def ànd ngeen si may leen ma ay cœur rouge ma bëgg leen ci ak yéen. ndeysaan bas lay bas lay nee ma kooku wérul après lay xam la mooy làmb ma nekk làmb day saay reenu njàmbi la ma mënu jaabate yow ñi ma talfaa yal la yàlla may ndam jërëjëf mi ngi noonu ndeysaan maa ngi leen di gis di leen kontaane euh, Mamadou Ndiaye ñëw ni ma géejuwaay sël géejuwaay dëkk la ndeysaan nous sommes ici à géejuwaay jour du vérité préparation Youssou Ndour muy dem stade ñu fës ñu leen toppal image yi mbokk yi jox leen ko Youssou Ndour génn na léegi tuuro ay garabam def ay tegtalam dal du duggaat ci biir kër gi waaye ay sëñ yu noonu moom su may reporté may di bëgg. di muñ di kontaan ndaxte yàgg nañu liggéey man ak moom waaye waagaan Diouf dugg dugg waagaan alam loo waagaan Paate Balde waagaan Demba Balde waagaan Fati Balde waagaan Buur Géwél waagaan <laughs> waagaan waagaan gars yi ñu ay kër rouge ndeysaan Ibnu Fata may na kër may leen ma kër rouge ma xool Youssou Ndour a ngi noonu waay boo ko intonné li si réew mi Youssou ngi noonu laay laay laay laay ndeysaan boo ko intonné li si réew mi ah moom moom moom Balla Gaye numéro 2 ndeysaan Youssou Ndour ñu noonu ndeysaan première image Youssou Ndour première image génn na ma saraxe yaay la la la waaw ndeysaan ndeysaan waaw daa yaa nga doon dër bi. loolu la ma zil wax nee na ma Talfa coow rek moo la boole Youssou waaye du palmarès waaye lamba lamba yaakaar naa euh, du biir de xëy gosin lamba si kaw la ñuy dabante jërëjëf Modou Boy jërëjëf Norbert Lopi ziar naa la. Youssou Ndour génn na léegi génnaan na mi ngi noonu tuur nañ ndox ma yow a noonu noonu ndeysaan sotti nañ ko ko hey Youssou Ndour xale ngi noonu de sang nañ ko duggaan na Ibrahima Kouyaté jërëjëf kontaan naa si yow Ibrahima Babacar Laay Jeeju jërëjëf canta ngërëm ñal na laay LS Pro fan nga faytee Youssou Ndour a ngoog sëñ Alla Babram Bambay borom junni yi le grand mara fër nga féetee bërëm na dëgër sëñ àll ba Youssou Ndour a ngi noonu ana jàngi fi kaas foo féetee Youssou a ngi noonu waaye sëñ Fallou Seck borom tab sey Touba Xayra séeri maam jaara ak soxna bana fër nga féetee Youssou Ndour a ngi noonu jërëjëf Modou Gueye Modou Gueye nee na ma Pikine dañuy Youssou Ndour nga dëgg Pikine ak Guédiawaye benn la te lay dox seen diggante waaye jërëjëf ki nga xamante ni mooy Abo Sañ Sañ Sarr borom përi la France fan nga fayte yuusu mu rëy noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu sol ay tisal yu yanj mbooloo ba génn ñëw pour pousser yuusu vers la victoire euh, tey jii diggante mag Talfa Zia Wade Balde ndeysaan daa nee na ma combat bi Instagram la koy si daal Zia pirate kara mën a pirate <laughs> ndeysaan zil nee ma Talfa Thiat Daouda Fall nekkoon lamb ji ndeysaan zil na ma euh, Talfa Thiat Daouda ñoo nekkoon lamb ji waaye nag tey comme ma wax rek lamb moom sawaay dootul palmarès de waaye coow mën na la boole mbër waaye Youssou Ndour ak Talfa c'est normal logique na pour ñu bëre ndax dañu ngay ay xale nañu gàkkoo ngi noonu ay sa jigéen bu mën góor ñëw na ndeysaan taalibe sëñ Babacar la borom Dakar People jërëjëf Fallou Fallou nel ma talfa sël aca gaay yow may ba bësal m bi bul ko fàtte ba zem yi bësal zem yi bës leen zem ma xool bu fekkee li may def ànd ngeen si may leen ma ay cœur rouge ma bëgg leen ci ak yéen